waa ONAS yi ca Ndar ne fokk ñu xaar nawet bi jeex a pour euh, seeni i jafe-jafe saafarawu gannaaw jàppante yi woon ca boru Falémé diggante askan wa fa dëkk euh, ak euh, takk der yi yaakaar mën na am député maire bu Bambou sol na dàllam ngir dox si tànku jàmm coowal déclaration de politique générale bu premier ministre président Bassirou Diomaye Faye wax Ousmane Sonko démb ci conseil des ministres mu gaw dem mi dafi DPG ci kanamu député yi nit ñu gëstu ci walum politique ne kaddu kilifa jipna tek nak tek na pression kii di Ousmane Sonko gëstu Mouhamed Ali Mbouba ci xibaar yi dañ teg xibaaru bitim rew xibaaru tagat yaram ni ci yene kay yi laataa ñuy gis-gis waxtaan wi jëm tay nees mëna def ba luyas wi yomb ci askan wi mu nek li gëna a ci xibaar yi nees lu nañ ci ay faram-fàcc El Hadj Ndiogou Diène Maysa Mbaye moo nekk ci machine bi mbokki ñu leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futurs Médias gannaaw taw yu foor yi wàcc ca Touba kon ñu bëri nag jamono ji mi ngi tëmb bokk na ci nag Ngiraneen foofu lépp ñaari téeméeri kër ndox mi nangu na ko jamono ji askan wa nag nekk ci ndaxle di sakku kilifa yi daal di leen di gestu ci nu mu gën a gaaw dimbali leen Pape Mbaye Diaw. valise matelas ay lal ñu daal di koy chargé ci ay saret di xuus ci ndox mi di génn askan wi nekk ca Ngiraaneen ñoom ndoxu taw yi moo leen sonal lu ëpp ci ñaar téeméeri kër jamono ji ndox mi dafa dugg ba fees dell. ndox moo xamante ni at mu jot liñ ciy dund. kenn ku nekk xam na ni wax dëgg yàlla metti na ñaar téeméeri kër ak lu topp génn nañ seeni kër ndax ñaari taw mel nii bu demee ba ñun fuñ jëm. ci kër gi nag ndox mi fees fi dell ñi fi dëkk. ku nekk di wut ay pexe ngir seet noo génne xale yi ak mag ñi ñu daal di leen teg ci sareet ngir génne leen quartier bii ñeenti at yoo xam ne ñun màggalewu suñu kër yi tànk yu jaaxle yi nga lañ leen dugal dugal ay maire di leen jàllale xam nga ñu koy wax dafa am lu mbëggoon ñëpp jàpp ci muy góor muy mag muy ndaw Tuuba nag ku ne xam na ne dañoo jëf ñi nga xamante nii ñoo loru ci mbënn mi fii nag di xamle ne liggéeyu assainissement yi nga xamante nii ñoo parewul moo indi jafe-jafe yu metti yii. canal yi ubbi wuñ ko ba pare wutal ko ay regard canal boo ko ubbi waroo ko wutal regard boo xoolee canal bi sama ginnaaw mi ngi rëfur la. metti na ba fa metti yam ndaxte dafa mel ni dañu doon wutal saafara waaye saafara su jur jàngoro la. koñ yi nga xam ne ñoo ñu jege yëpp ndox bu fa nekk rek ci koñ bi lay versé. mais ay canal lañ fi installé yoo xam ne canal yooyu moo fees di ball. ci quartier Ngiraneen lu ëpp ñaar téeméeri kër ñoo nekk ci ndox mi askan wa fay yeewoo di xamle ne liggéey bi nga xamante ni moom lañ sumb fii ci Touba te àggut moo indi jafe-jafe yi nga xamante ni moom la ñuy nekkee ba tax ñu ngi sàkku ci gouvernement bi mu jël ci ay matuwaay lu ko moy rek màggal gi ren dina metti lool ci ñoom RFM Touba Pape Mbay Diaw Pap Mbay Diaw ñi nga xam ne ñooy waa météo xam ne ne démb daanaka ah, taw na ci gox yu bëri ci réew mi ñoom ñu wax ne sax taw yooyu dafay ah, ci ci dëkk yu Dakar ah, teewul nak lu ko suba nag dal dina commencé di am dañuy déglu monsieur météo Pap Ngor Ndiaye tey nag ci àjjuma ji ñu ngi séentu yeneen taw ci bëj saalum digg réew mi jëm ci côte bi euh, diggante Fatick Mbour jëm ba Ndakaaru Ndakaaru ñu ngi fi xaarande ay averse muy taw yu gaaw yoo xam ni dinañ ko nemmeeku ci après midi bi jëm euh, début de soirée maanaam ngoon si jëm euh, boori timis bu loolu weesoo nag ëllëg ak gannaaw ëllëg muy ci weekend bi asamaan su dal lañuy ñuy nemmeeku ci daanaka réew mi yëpp fudul nag boori bëj saalum foofee dinañ fa am ay taw e o Legudomo. mu nekkoon euh, monsieur météo Pape ngoor Ndiaye euh, ci nag euh, lu soxal wàllu taw yi wax ci men ndox di ndoxu foos yi wuteeg ndoxu taw yi ndoxu fos yi nag sonal askanu Medina Mahmiyal nekk ca Ndar ñoom nag ndoxu fos yi moo war seen koñ ba fu ne kenn amul foo jaar ñeenti at a ngi nii ñuy dund lu ni mel tax sax ñu ne dafa doy bëgg bëgg nag kilifa yi daal di ci jóg seeni jóg ci leeral. lépp ñeenti at a ngi ndox bi nga xamante ni mooy ball ci biir Medina Mahmiyal lu koy oto yi mënuñu jaar nit ñi itam naka noonu file benn yoon kott moo fi am Ablaye Fall bi nga xamante ni ci quartier bii la dëkk di ko naqarlu dund mu nekk loo xamante ni aussi lu metti la parce que fii boo xoolee presque moom mooy mbedd bi nga xamante ni mooy yoon bi nga xamante ni ñii dem marché fii la ñuy jaar ñii dugg fii la ñuy jaar ñii génn fii la ñuy jaar ñii dem jàkka ja fii la ñuy jaar récemment ay vieux daanu nañ fi parce que ay briques la ñuy teg wala ay saaku. askan wi nekk ci Médina Marmial jamono gi dañoo sonn ñoom nag dañu bëgg ñu saafara mbir mi ci na mu gën a gaaw ndaxte boobu ba léegi ñu ngi ñaxtu ak di jooy waaye kenn faalewu leen Mor Fall dëkk ci koñ bi lee. baaxul ko ki baaxul baaxul si wér-gu-yaram baaxul si dara kenn bëgg ko nooy kenn mënul dëkk moom donc du gan goo xamee ni kenn yéen nag sa morom wala kenn bëgg na si dëkk ak moom. ñoom ñi nag li ñu bëgg mooy kilifa yi daal ciy dugal seen loxo ci nu mu gën a gaaw ndaxte lii la yàgg na te itam loraange yi dafa bare. autorités yi defuñu si dara dernière visite bi fi DG bi defoon jëloo naa ay engagement mais engagement yi ba léegi nii aussi c'est resté lettre morte. ci Médina Mar Yàlla nag askan wi ñoom ñu ngay ñaxtu nee nañu lu ñu bëgg mooy ñu jàppal leen ndox mi ball seen biir dëkk bi lee ay at a ngi lee kenn andiwu ci saafara ñu jàpp ni loolee bokk na ci li nga xamante ni tey jii moo yàq seen gox bi Ousseynou Diop Saint-Louis RFM. Ousseynou Diop ñi di waa ONAS nga xam te ne ñoo yor wàllum cat ci réew mi daal di addu ci mbir moom bu ñu sukkandikoo ci chef service ONAS bu ndara nee na nag jafe boobu li ko indi mooy ñàkk entretien réseau bi waaye nag dañ ci tuuti saafara waaye du nekk léegi gannaaw nawet bi lay doon dañ koy déglu moom chef service ONAS bu ndar Serigne Mbaye si Thiam ci micro seen i dootu ñëw na maanaam ñoom problème fi ñuy wax. mom foofu point bas la foofu ñoom ñu ngi si bout de réseau bi non seulement ñu ngi si bout de réseau bi mais beneen problème moom si point bas lañ nekk loolu tax une fois que bu kan ci kanam ñoom bu ñu ubbi sax mais ñi nekk seen kanam bés bu ñu ubbee regard rek ndox bi bu duggee bu amee blocage ñoom ñooy ressentir désagrément yi moo tax di leen bàyyi loo xel réseau bi ndoxu kër moo ko tax jóg ndoxu taw taxu ko jóg nañ ko bàyyi xel bu tawetee bu ñu ubbi regard yi loolu dinañ permettre réseau bi eaux usées bi di dox ndoxu kër yi di dox. incha allah bés bu ñu génnee nawet bi ak jàmm foofu jot nañu changer une partie li nekk ci kanam li nekk ci ginnaaw moo des suñu supérieur ñëwoon nañ fa population bi génne nañu expliqué nañu wax nañ solution bi une faa que bu bu ñu génnee si nawet bi incha allah dinañ jublu si solution yi. mu nekkoon Serigne Mbaye Sy Thiam nekk nag chef service on ONAS bu Ndar wax ci plan jaxaay di kër yi nga xamante ni eh, lañ ko waroon a jox ñi loolu woon ci mbënd yi fii ci Sénégal eh, ci mille cinq eh, foofu nag li ñu nemmeeku léegi ay nit ñu fay dëkk sax sax ñu taf ay cité yu ñu tuddee ubbi dëkk ñi nga xamante ne nag ñoo taxaw na ju kër yooyu di nekk nag gis ne loolu jaarul yoon ñuy sàkku nag ci kilifa yu bees yi ñu daal di jubbanti mbir moom le

waat nu réunion pour xamal ñu ne travaux yi dañ koy démarrer waat nu mu gën a gaawee ñun nag propose leen ni comme que génne ubbi dëkk yi ñoom chaque fois dañ si xaw a hésité pour dalal suñu xel nañ commencé terrain nuyu ba pare si lañ choisir quinze terrain nuyu commencé ko barki démboo Ndiaye ñu dégg nii déeni ñooñu génne leen démb ñu xëy fekk ay ñu ay suuf si maison yooyu naan nañ fee koy eggale pour dëkk ñu ne c'est pas ñu sonn nañ 386 bokk ci ñi nga xamante ne ñoo ko woon ci mbënn mi ci atub 2005 ca Pikine ak ca waaye ba fii nag kenn recasé wu leen ñoom nag ñuy xam ne ni bile problème jooytu nañ ko fu nekk même ci autorité yi waaye ba fii dara wu la 2005 ba 2018 métti na ñun suñuy kër bu ñu ko tojul woon dañ fekkoon ne nekk di toltolaan waaye moo ñu gënal dem di luwee seet nañ autorité boo xalaat autorité diine politique administrative yëpp seet nañ leen dañoo dëggal bopp dañ leen génnee bëccëg guddi ñu ñëwaat sinistre yi nag bëgg autorité yi daal di jël seeni responsabilité daal di indi saafara ci seen jafe-jafe bi nga xamante ni moom la ñuy dund te yàgg na lool ngir ñu mën a moytandiku ay tension ci cité Plandiaray Aminata Ba Kër Massar rajo Futurs Aminata Ba foofu ca Kër Massar une heure tegal na juróom-ñetti minutes pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor RFM xibaar yu wóor oui ci xibaar yi wax ci jàppante yu amoon dimanche bi ñu weesu ah, ca booru dex ah, bi di Falémé diggante nag askan woo ko wër ak ñi nga xam te ñooy takk der yi askan wi nag dañ taxawoon ah, ba bañ ne duñ nangu ñu def benn usine boo xam te ne ay chinois ñoo ko fa war a def mu jox caw ba jàppante amoon am sax ñu ci dotoon a teg loxo ki nga xam ne nag mooy député mais bu dëkk bi di Bembu moom nag jamono ji mi ngi dox tànk jàmm diggante askan wa ak ñi di takk der yi. Ibrahima Jabaxate juróomi fan ginnaaw jaamarlo bu amoon fële ci Satadugu ci diggante takk der yi ak askan wi di yeewu ci gox yooyu tension bi wàccagul ba léegi ñu fàttali rek ci fukki fan ak ñent ci mois de juillet bi ay responsable société chinoise ñoo bëggoon a samp ab société ci diwaan yooyu waaye askan wi ànduñu si woon moo waral ci jaamarlo boobu ñu teg loxo litaloo ci fukki nit téye leen fële ci gendre brigade de gendarmerie territoriale bu Saraya laataa ñu leen di bàyyi kii di député maire bu Bembu jiite ab délégation demoon dolli ci Satadougou pour dox tànk jàmm waxtaan ak askan wi Madina Fakha. nous avons fait donc le déplacement nous avons bien discuté. wa jot nañu def euh, doxum nemmeeku dem fekki askan wi waxtan ak ñom bu baaxa baax euh, te gis nañ ne déglu nañu comprendre nañu déggante nañ dal ci mbir yu bari donc euh, liñuy bëgg fi mu toll ni modi wo ñi nga xamante ne ñoom ñoo di kilifa yi ñu jàppale ñu bu baaxa baax ci situation bi la fexe ba réglé ko. jéem a aar daal bërëb yi ñuy wax semu na nga xamante ne dafa sacré lool ci ñun donc euh, moo tax jàpp nañ ne bu ñu defee loolu daal askan wi dinañ am kontante bu baax a baax jot ñu leen def euh, promesse nag liñ leen wax euh, mooy que ne lépp dinañ ko nettali ñiñ ko war a nettali. kàddu yi maire bi yëkkati nii taxul ba askan wi dellu ginnaaw ci xeex bi ñu sumb rawatina nag aar Semuna barab bi nga xam ne fi ñu denc seen i maam Ibrahima Jabaxate Kédougou RFM. Ibrahima Jabaxate diwaan googu sax la ñuy des di diwaanu Kédougou ak démb ca ndajey conseil des ministres am na nag benn projet de décret boo xam te ni eh, daan nañ koy fay ab dotape daal di ci mu jëm nag ci tere lépp luy yëngu-yëngu ci wàllum mine foofule ca eh, gox bi di eh, lu wër wa dex bi di Falémé naka Euh, exploitation foofule ca diwaan ga di loo xam te nag société civile ak ñi yëngu ci wàllum environnement foofule ca diwaan Kédougou rafetlu nañ ko bu baax a baax dañ ci teewlu Gimba Diallo njiitu forum civil euh, foofule ca Kédougou ay kàddoom ci jokkoom ak Anoucha. ñun daal mesure bu ñu jël euh, démb ci conseil des ministres ñoo ngi koy rafetlu ndax exploitation bu ñuy def ci Falémé bi demoon na ba vraiment doy waar nit ñi demoon nañu ba ragal ci seen dundin. ndax euh, li ñuy utiliser métaux yi ñuy utiliser li ñuy wax ay mercure te li ñuy gas demoon nañu ba naan ah est-ce que finalement ñi fa dëkk daal est-ce que vraiment duñu ñu tuxu parce que demoon nañu ba affaire bi jégg dayo boo fa demee daal ñi fay am vraiment seen permis autorités yi fi nekk autorités locales yi à savoir maire yi waa conseil départemental buñ fa demee daal dañuy naan amuñu affaire ak yéen ñun dañoo am suñu këyit dañuy exploiter. bu ko defee moom vraiment ñooñu duñ ci mën dara te ñooñu population yooyu ñoo ngi ci ñooñu la ñuy jëw di jooytu moo tax vraiment mesure yooyu daal mesure yooyu daal vraiment ñoo ngi koy rafetlu di encourager nouvelle autorité yi parce que loolu loolu rek moo tax vraiment population yi moom mën a gis seen bopp ci ci vraiment ci état ndax euh, ñoom ci état la ñuy mën a yaakaar et bu ñu demee ba am ay jafe-jafe te loolu moom dëgg bokk na ci loo xam ne moom vraiment solution la pour régler population yi en tout cas gox goxaan yi nekk ci Falémé bi et mesure boobu daal ñu ngi koy rafetlu et di encourager autorités nouvelles yi di jëf lu ñuy lu ñuy wax ndax moo moo moo am solo ci ci ci réew mi. nekkoon uh, Gimba Diallo njiit uh, bànqaasu ba forum civil ba nekk ci Kédougou bi ñu naa lañu jëm wax ci coowal suuf nga xam te ni mu mbir moo aju ci mbirum forêt classée bu ñamoon uh, coow li di wéy juróom nit sax ñu teg leen seen teg leen ci loxo ndax nag dañoo jàppoon forêt classée boobu di dagg di jaay ay nit ci dëkk tax sax boo procureur daal leen teg loxo mais maire dëkk ba nag daal nañ ci àddu nee nag yéex na koo def ndaxte xew faaluwuñ leen la ñuy déglu Atab Badji maire bu ñamoon ci micro Lamine Ba. lu wax mooy képp koo xamantene ne na ci cakat-cakate suuf soosu noonu na yoon def liggéeyam c'est pas seulement ñi ñu arrêté ni ñu ci bokk li ñu fi xam ñun lu ñu xam ñu ci nekk dañoo bëri bu ñu koy alerté yàgg depuis le 12 euh, avril 2022 laa ci jëkke a bind lettre di koy rappelé di koy rappelé ba tey ñu toll fu mu toll mais ñun dañoo jàpp ne il n'est pas encore tard pour corriger li nga xamantene ne moo nekk di xew foofu euh, li ñu jàpp d'abord ñun commune Niamone euh, conseil municipal bi nangu na ne bu fekkee ne état bi déglu nañu ñun pare nañu pour jox leen suuf soo xamante ne nañ ko classé forêt classée en contrepartie ñi déclassé bi nga xamantene mo moo nekk di andi coow bi té lu ci gën a bëri ci yefu maté lañ ko nekk di défé donc bu fekkee né problème pour am partie bu ñuy classé forêt classée les li fi am ci ci ci ci ñun am nañu souf bu leen mëna a proposé pour ñu classer ko parce que problème bi moy buñu ko déclassé fan lañu amé lu tollu non mais ñun nangu nañu ko monde à plus de 264 km carré donc du souf c'est donc moy ñaamoon yépp alal mais engagement ak volonté bu ñu nara jël pour régler problème bi lañu ñu di jël pour régler newoon uh, Atab Badji di maire bu ñamoon nekk ca diwaanu Ziguinchor fukki minute ak ñeent uh, mo tegu ci une heure te xinin ak xëy nekk ca ak RFM kumpa oui ci xibaar yi wax lu soxal wàllum euh, wér-gu-yaram Medina Yoro Fula euh, foofa nag euh, jamono ji ku bëgg a fay faju fokk nga faju li ko waral moo di ne bor boo xam te ne toll ci fukki milliards ak juróom-benn boo xam te ne dañ ko yoreel mutuelle de santé mutuelle de santé bi kon moo ko yoreel centre de santé ba fa nekk waral sax ba askan wa nag ñoom jamono ji am i jafe-jafe ngir faju ndax bor boobule leeraleeg Abdoulaye Diallo. mutuelle de santé départementale bu Medina Yoro Fula moo ameel centre de santé bu gox ay koppar yu upp fukki million ak juram benn loolu waral wergu yaram askan wa di fa sooxee ñu bari ci askan wi mënu ñu fa faju ni mu waré Xamadu mbalu mi bok ci comité de santé bu commune kulinto mo si addu kër Mineur Fula instant population bi dafa sonn mutuelle de santé surtout daf doon jappelé xalé yi ñu am 5 ans wala moins de 5 ans wala femme enceinte depuis 1er juillet loolu dañ ko dakkal médecin chef de district dafa bind arrêté dakkal ko lu waral loolu nag parce que dañoo toog plus de six mois mutuelle de santé départementale bi fayal dette bi de ce fait mooy centre de santé de médina ak poste de santé yëpp dañoo confronté ak ak problème médicament instant pharmacie yu nekk si biir poste de santé yi amatuñu benn garab. di mbir buy xew ci jamono yi nawet di waxtu woo xam ne ci la feebar yu bëri di feeñ. surtout situation instant mi dafa métti parce que période nawet. ñuy sakku ndimbal. ñaax état bi pour ñu jàppale ñu ñu fay ñu bi au moins bu ñu fayee dette bi si poste de santé yi ak centre de santé mel fa la au moins ñun dañuy relance waat suñu activité dañuy jëndaat garab yu bari. centre de santé bu Médina Yoro Foulah di këru docteur bi nga xam ne seen i koppar yi ñuy dajale weer wu ne mosuñoo weesu ñeenti millions bi la këru docteur moo amel pharmacie régionale d' approvisionnement ab bor bu ëpp fukki millions ak ñaara. jafe-jafe yooyu ñoo leen tax a arrêté gum seen i lëkkaloo ak seen i mutuelle de santé départementale RFM Kolda. Abdoulaye Diallo Abdoulaye Diallo des euh, ci wàllum wér-gu-yaram ba léegi ak ndaje yu kuréel gémbo gynécologue yi Sénégal yi di amal démb ba léegi ah, ci loolu sax euh, ñu daal di profito def na gëstu ci wàllum gynécologue ci réew mi li ñu nemmeeku moo di ci diwaan gu mel ni Mbour gynécologue yi moom am na ci dëkku euh, kaw yi waaye nag am na ci dëkk taax yi ci ville yi waaye nag boo demee ci dëkku kaw yi moom jigéen ñi nga xam ne dañuy dañuy tollu diggante jafe-jafe la ñu am ngir mën a am gynécologue bu leen di euh, xool di saytu seen wér-gu-yaram nday Mati Dieng ci gis-gisu Léonie Sarr wareef la ci soxna bu ne ngay dem ci gynécologue ngir saytu sa wér gi yaram moom mi le mu ne noonee lay def. damay dem ci sa bopp waaw mën a contrôler daal sa vie intime. naataangoom bi li mu bokkal liggéey di Aïcha Ndiaye Dia moom it mu ne say su ne dafay dem ci gynécologue bi nekk ci hôpital bu Grand Mbour muy xam xamle sax ni file ci mbuur du manqué gynécologue la ñuy jooy waaye kay xaar bu yàgg buñ la fixé les rendez-vous. mais des fois boo nekkee ci urgence rendez bi mën na sori loolu rek moom moom mooy problème bi sensibiliser population bi dafa des parce que la majeure partie dañuy yaakaar ne rek bu nekkee en état ci la ñu war a dem gisi gynécologue ci Mbour nag am na ci village yoo xamante ne soxna yi fa dëkk ngir ñu gis gynécologue jafe-jafe bu rëy la lu ni mel moom la ñu nemmeeku ca Njaasaan jigéeyam saw Njaajeen wala bokk Njoomaar bi nga xamante ne fa la Ali Faye dëkk. Njagañaaw ak bu Seeseen bu Sañara amul gynécologue bi fa toog boo xamante ne bi lépp buñ ko soxlaa dañuy dem gisi ko dafay ñëw de manière périodique joxe rendez-vous loolu nag su amee man mi dem na gis jigéen ñi dañoo rang sonn ñii sax dañoo mujj tay dem donc ce qui fait que loolu dafay indi complication ci wàllum jigéen ñi ndax jigéen bu ndab biir ba dem à terme te gisul gynécologue loolu difficile woon bu gisee benn yoon la ko gis wala ñaari yoon le reste du ko mën ndax bu fa nekk ci ajaay privé la boo fa demee da nga jël rendez-vous mu consulter mais là tu soxna yooyee nag ngir ñu am paj bi nga xamante ne gynécologue moo leen ko waroon jox dañuy jëfandikoo mbir yoo xamante ni ci seen i maam lañu ko jëlee ngir sàmm seen wér gi yaram. Ndeye Mati Dieng Mbour rajo Futur Media. Ndeye Mati Dieng gannaaw wér-gu-yaram njàng mi ak examen BFM bi nga xam ne altine lay tàmbale ci réew mi yëpp ci ni jamono ji nag ñi nga xam te ne ñooy élèves yi nekk ci seen révision yi ci Kaolack nag ñi nga xam te ne ñooy euh, kilifa yi ak ña fa nekk di wax nag élèves yi li ñuy xaax ci ñoom rawatina nag fàttali leen euh, li ñuy tere ci examen yi lu mel ni téléphone Prosper Coly mooy coordonnateur départemental bu MONEP ñu déglu ko ci micro Fatou Mbow. bac euh, élèves yi doon def terminal ñoom rek doonuñ ay candidat donc ñii tamit euh, di def BFM wax nañ leen euh, jàppale wax nañ leen saytu préparer leen ñu mun a ñoom tamit def examen ci anam ñu mu gën a rafetee téere ñu ngi ci taamu mathématique bi français bi ak anglais bi wante mathématique bi moom bokk na ci li nga xam ne boo seetloo xale yi dafa jafe si ñoom parce que xëy na ci classe yu ndaw yi la leen toppee mais boo seetloo ba troisième xale yi mathématique yi dañ ci

ñu toog benn fan yàqal la ko dara jaru ko di saytu aussi di woo waajur yi ñoom it tamit ñu jéem a góorgóorlu ci loolu ndaxte téléphone mën nañ ko ñàkk yóbbu jouru examen ñu jàppale seen doom yi ba nga xam ne ni tamit li ñuy def nii bu mu doon tey pertement foog naa loolu jaru ko mu nekkoon Prosper Coly di eh, njiitu MONEP eh, foofa ca Kaolack daaneel ak waa forum social sénégalais ñoom eh, di gis ne ay lëndëm lëndëm bëri na ci yarum ndox mi fii ci réew ni waral sax ñuy sàkku ci nguur yi ñu daal di xoolaat contrat bu Sen'Eau nga xamante ni siège moo ko moom ñoom nag tey jii lañ ci doon jël ak tas xibaar yi daañu ci dellusi si si yeneen xibaar ak suñu ndaw lañu fa teewaloon di Kumba Sanjaan Faye RFM bitim réew. xibaaru bitim réew Georges Dëcc Diop lañ ca daal zone ngi lay nuyu. maa ngi lay fay laata jógu xibaaru bitim réew yi dañ koy taax euh, tàmbali ak Burkina Faso foofu nag geneen cong am na ci dëkk bii di Djibo. Djibo ca province bu Soum ay sites yu bëree bëri ci dëkk ba ñu euh, song leen bureau bu médecin sans frontières ca la bokk euh, jot ay sooxi kebal waaye équipe yaak ña nga xamante ne ñoom ñoo fay ñoom ñoo fa tawat dara dalu leen loolu la organisation bi xawalule société nationale bi saytu lépp lu jëm ci wàllum. Euh, stock de sécurité euh, euh, di jox ñam yooyu itam ña nga xamante ne ñoo koy yittewoo yóbbu ko fa nga xamante ne fañ ko soxla la magasin ba dañ kaa taal benn pylône bu compagnie téléphonie ñu yàq ko jamono ji doxatul ay tant ñu taal leen itam ci ab site wa nga xamante ne ay daw ñoo fa nekk cong gi nag mu ngi am ba donte nag dégâts yi bëri nañ waaye kenn ñàkku ci kenn ñàkku ci bakkanam dem ba réewum Kenya wax ci ay nit yeneen ñu ñu jàpp ci mbirum waa ji nga xamante ni Euh, dafa doon jàpp jigéen ñi di faat rek ca Makoro. ñaari suspect lañu loole gannaaw bi ñu euh, fësalee kanamu ki nga xamante ne moo di Collins Jumaisi euh, Kalusha te ñu joxoñ ko baaraamu tuuma ne moom moo faat toll ci ñeent fukki jigéen ak ñaar Serigne Saliou Seck. ci altine bi la police daal di fésal ne Collins Kalusha moom mooy ki nga xam ne moom lañ gën a njortu ne moo jiite mile mbir ñu daal di koy tuumaal faat bakkan yu baree bari li mu ko nangu nag avocat dafa jàpp ne xoqatal ak xor ñooñal yi ñu ko doon def ndax mu daal di koy nangu talaata bi ci topp am na yeneen ñaari doomu aadama yu nu jàpp ci boobu boobule enquête Amos Momani Magusu moom dañ koo teg loxo ci bi muy génne ci benn baar bu nekk ci Nairobi keneen ki di Moses Ogembo dëkkee ca Mukuru moom dañ koo jàppale ak téeméer ak juróom fukki téléphone po téeméer ak juróom fukk ak ñeenti téléphone portable yoo xam ni victime yi ñoo ko moom enquête yi nag dafa leeral ni yooyu le appareil ñu ngi ko jëndee ci Collins Kalusha mi nga xam ni moom la ñu njortu ni mooy ndayi mbill gi loolu nak di leeral ne moom Kalusha am na lu ko lëkkale ak gaañi nu jàpp li Kalusha wax ni takk deere bi ko jàppee dañ ko doon fitnaal ba tax mu nangu liñ koy tuumal waaye defu ko terewul ba attekat bu makka dara jël dogal ci àllarba ji ne nañ xaaraat fi ak ñaar fukki fan ak ngir mën a enquête bi ba tey nag autorité yi ñi ngi defub taxaw nga si ay yu bari dañ leen faa di jàpp néew yo xam si sax daanaka yi ci ëpp fi ñu leen fekk day tolloog téeméeri mètre ak bureau bu police lol sax tax ba askan wi am xel ñaar ne police bi dese nañoo vigilante mbirum faat doomu aadama nga xam ni dafa bari lool ca Mukuru tax na ba kilifa yi jël dogal daanaka takk der yi dañ fay fees dell bés bu yàlla sàkk lépp nag ngir daal di teg loxo képp ku ca laale. dañuy desandi ca Kenya foofee recours ba suspend na tere doon tere manifester yi te police jëgoon jëloon dogal grumel mel Mamadou Omar bah mercredi police jëloon décision bobu ne amul leader lolo tax day jafé lool ñu encadré ko yok ci né manifestation yoyu ay criminels ñoko infiltrer décision Bobu di ñew gannaaw benn weer bi nga xamni manifestation anti gouvernementale amal nañ ko fa luy tollu ci fukki nit fatu ci yenen manifestation ñu bëggoon ko amal jeudi bi waaye mujjuta antu centre ville bu Nairobi manifestation manifestation yu bari ñu organiser ko fa ay ndaw def ko fa manifestation yoyu am danaka ci réew mi yépp ñu tambali gannaaw biñ né dañuy yok impôts yi waye donte ni sax retiré nañ ko ndaw ñi dañoo dem ba réclamer démission président William Ruto haute cour suspendre ordonnance di xaarandi ñu càmbar plainte bi nga xamni organisation de défense des droits civils déposé nañ ko téré googu tax mer bi yaatu lool dem ba ci internet bi am ñu né police amul pouvoir bobu, loi Kenyan bi mo garantir manifester bëri ñu nga ca capital ba ngir xaarandi bépp manifestation bu jib Modou Omar Ba dañuy wax ci euh, panne bu mag bu am euh, ca Microsoft te laal àdduna bi ban technique walum informatique euh, laal ay entreprise yu bari ñi ci gëna a modi compagnie aérienne yi ñu bari sax dañoo mujjé annuler seeni vol ay banque naka yu ay média mu indi leen ay galancor ay informaticien yu bari né nak ci ab opération de mise à jour bu CrowdStrike di ab antivirus bi nga xamantene wa Microsoft dañ koy jëfandikoo loolee. loolee moo indi euh, pan ba waaye euh, patron bu euh, CrowdStrike di ab groupe américain bi yëngu ci wàllum cyber sécurité nee na problème bi xam nañ léegi lana te ñu ngi koy jéem a jubbanti taskatu xibaar doomu Amérique bi di Ivan Gershkovich moom teg nañ ko daan fukki atu kaso ak juróom benn moom nag justice bu Russie jàpp nañ ne moom la ko yóbbee loolu yëpp espionnage la ñu ne nag moo ko def reporter boobe nga xamante ne am am na fanweeri at ak euh, ñaar te doon liggéeyal Wall Street Journal nekkoon itam ab taskatu xibaar ci agence France Presse euh, moom nag euh, danañ ko yóbbu ci ab colonie pénitentiaire ba nga xamante ne day tar lool moom weeruk mars atu ba 2023 lañ ko tegoon loxo jamono ji nga xamante ne mu ngi nekkoon ci ab reportage ca Ekaterinbourg ca Ural parc bi nag la mu bëggoon ñu daan ko moo di fukki ati kaso ak juróom-ñett. yegg si léegi ci xibaaru tàggat yaram ànd ceeg Malal Junior Diagne Diagne maa ngi la nuyu. jërëjëf Alaaji Ndiogu ñu daal di door xabaar yi wax wàllu basketball mu jëm si finalu coupe du maire bi nu bëgg amal si aser ji ci Marius Ndiaye ne si góor yi Wakam ak waa Duc ñoo dee kon jongante waaye loola laata euh, nu kaa def faw jigéen ñi amal seen final bi noppi muy dox diggante AS Ville de Dakar ak waa Guédiawaye Basket Academy ñooñu sax di waa Guédiawaye seen entraîneur di Malick Bachir Diop jot na dajaate sota xabaar yi kàddu jëmale ci gile ñu diglu ak lëf ca baat ya mu yëkki jokkalante ko ak taskatu xabaar ya ñun dañuy ñëw pour basket dañuy ñëw pour def final final ko xam xam ne fet la lépp lu ñu ci war ci final rek dinañ ko def incha allah dinañ ñëw basket ba ñëpp xam ne Sénégal yi basket nañu ay xale lañu ñu ngi rencontré équipe bi nga xam ne moo mën ci Sénégal bokk na ci ñi mën ci Afrique jamono ji parce que seen entraîneur d'abord mooy bokk na ci entraîneur yi ci mën ci Afrique ñun du ñu ñëw rek joxe suñu di gannaaw la ñu dóor parce que dañu ne ñoom juróom yoon bii suba bi mooy juróom benn yoon dañu war a joxaat suñu di gannaaw ñu dóor ci jàngat yi ñu jongat yëpp ma jot nañu jeu ñoom ay juróom yoon bu nekk am na ci am na ci différence dañuy ñëw nag lañ ci jàng ci expérience yooyu yëpp xale yi am nañ ko xale yi dañ ñëw rek pour jouer faire lu jëm si wàllub euh, Jeux olympiques paralympiques yi nga xam ne su ko amal mu jagleel ko ñi am ay euh, cër yu wàññiku ñoom nag am na ci ñeent ci sénégalais yu qualifié ci yooyu le jongante war a xewee ci réew France. comité ba nu ko dénk nag muy comité national paralympique bi ne ña ngaa def seen kéem kattan ngir mën a waajal bu baax baax yooyu lay jongante lañ ci bëgg mooy buñ ca ñu indaale ay médailles fii ci Sénégal ngir am ay médailles paralympiques ñu dénk nag mu nekk cette mission ba di yoroña am na kàddu yenn yu ñu jokkalante ak moom ñu dëkkal leen Sénégal dina dem ci Jeux paralympiques Paris 2024 ak délégation bu gën a yaatu ren dañ fa dem ak ñeenti athlètes qualifiés ku mel ni Idrissa Keita ci para taekwondo ku mel ni yusufa Diouf ci javelot lancé javelot ku mel ni canoë kayak ak Edmond Sanka Aline Dramé ci para tir à bohole boo tay atleti tey athlètes yi ñu ngi préparé wu amna na ay weer yu bëri ci ginnaaw ñu ngi tàggat seen bopp ak seen coach yi pour waajal bu baax euh, daje bu mag boobu xam nañ bu baax que ni demuñu foofu pour rek présenté wu demuñu foofu rek pour rek war ni présenté wu nañ dañuy dem pour jongante ji dañuy dem pour euh, pour uti médaille bi comme dëkk yëpp boo xoolee que ñoom leer na ci seen bopp leer na ci bopp coach yi fédération yi na ci comité national paralympique leer na ci bopp état ba tax na euh, dinañ dem ci jeux yi ci objectif yu leer ba nga xamante ne ni xaar dañ fa am euh, place yu baax wala sax am fa benn médaille wala sax am fa ay médaille gannaaw loola dañu waxtaanee lu jëm ci wàllub lamb ndax xam ngeen ni dibeer ji ci arène nationale foo sànni mbattu fa fa mu takk ndax ñooñu fa boole ñoo waral lu ni mel di Moustapha Tine bu bal mbooloo war dëkkante ak kii di Balla Gaye numéro 2 bu Géejawaay boobulee combat nag kii di Alburax moo ko tëgg mu nar a doon kon revanche wala ab euh, dëggal mën gi Balla Gaye euh, du ma woon tafatin loola dimance bu arbitre sifflé danu ci am lu nu gën a leer bu nu génnee ci làmb ji dana sóobu rek ci euh, rawante gaal ca ndar nag xamoon ngeen ni foofa amoon na ay mbijoo ki mballoo bee taxoon mu am lu ñu doon njort ci nii du am mbala dina am muy dem ca rawante gaal ya jàpp ko ni dina am ci fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru ut gii di teru ca ndar géej loola nag mu ngi amee gannaaw ci ba meeru dëkk ba sole dalam kon waxtaan ak mboolem ñu bokk ca yëf ya ngir ñu daal di kon teg ci suuf lépp loo xam dafa nekkoon kuute seen biir moom Mansour Faye jot naa yëkkati kàddu ba mu waxtaanee ba gars yi noppi ba juboo mu baat yi dénk ko Ousseynou Diop euh, xam ngeen rawante gaal dafa nekkul loo xam ni dafa am solo non seulement ci Guet Ndar waaye ci Ndar ak ci Sénégal

benn rawante gaal bu ñëpp àndee nekk benn say je pense que liggéey bi day dox organisation bu day nekk lu am solo. jaajëf As Ndiogou loola mooy li gënoon a fës ci xabaaru tàggat yaram yi fii lañ koy yemale. jaajëf Diagne. Soumari.com Touba Darou Salam Caro Prestige. ak association bi assureur du Sénégal ci projet bi jëm digitalisation attestation d'assurance automobile ñoo ni may li ci yéenekaay yi li ci yéenekaay yi dañ ca ànd ak Barthélémy Ngom dal leen jàmm ci fan yi ba ci sax na taw yu metti ci yu bari rawatina le quotidien mi ci delu ci gis ne noxu taw yi yàq na lu bare ay quartier yu bari Digante Touba Kaffrine ñu ngi tëmb ci jamono ji amna it ñaari xaleel yu ñak seen bakan ci ndox yi ca Kolda kay bi ne dañu di sangu ci taw bi ci jamono

ni juróom-benn premier ministre rekk ñoo respecté délai yi ci fukki at yi fi jaar juróom-benn yooyu Aminata Touré la Amadou Ba Moustapha Niass Idrissa Seck Hadjibou Soumaré ak Souleymane Ndéné Ndiaye ñii ñooy élèves yu baax yi la sama naataango wax ñi ci des tàmbale ko ci Macky Sall Abdoul Mbaye ndem si yàlla Mohamed Boun Abdallah Dionne Mame Madior Boye ba ci sax ki fi nekk tey di Ousmane Sonko ñoom ñépp romb nañu délai yi délai yooyu article 55 bu constitution bi moom moo koy fë règlement intérieur bu assemblée nationale encadré ko bi le jour né président Bassirou Diomaye Faye mu ngi nek diko accéléré ngir mu def déclaration de politique générale li am démb ci conseil des ministres Danaka Yene kay yu bari xeyé nañu ko niki nomination ya ca conseil des ministres chamboulement ci ministère yek yenn institution yi las lim nomination yi 98 lañu tax mu gis né Diomaye ak Sonko ñu ngi nek di sédélé ay sucette ñooñ rek li ñu nommé ci ay nit romb na 80 Cheikh Ahmed Bamba Diagne Mom lañu jox Cos Petrogaz Otman Diagne borom mafia Moussa Kackac Legi, moom président conseil d'administration Boufera, Goudamboup, Don PCA port Boudakar Mam Gongom, Ditaskatu Ngom di taskatu directeur général bureau de l'information et de la communication du gouvernement Akiyenen, Yenen, nomination Lep Demboul, la le témoin gis système patriote binak, nag mu président Basir Diomaye Fay, Dikaze dikaze Ainitam di caser ay nitam ay nitam Kolol, tribune dal politisation gi mu administration bi mu ne Badjahal, na IGE le soleil gis 81 postes ñoo changé ay njiit ni ki démb yéenikaayu an bi defab xayma ci ponk yi gëna fess ci waxtaan gi ñu doon waxtaan demb ci ndajem conseil des ministres bi Walum logement loyer SICAP et SNHLM HLM mbirum si ci rew mi lepp waxtaane nañu ko fa président nak daldi tek ci table bi ay pexem li mu bëgg ñëk moy ñu def bilan pôle urbain yi ak projet yi jëm ci walum tabax logement sociaux yi bu ñu ca noppee dooleel waa SICAP ak SN yombalit permis de construire ci nonu sax la sàkku ci premier ministre am mu amal conseil interministériel jëm ci logement yi fii ci réew mi réew mi bari na coowal suuf aéroport Léopold Sédar Senghor mucc ci lu ëpp 800 hectares moo fa woon waaye source a nee na lafa fa des motatul 40 hectares pàccoo gudul jeex te nag ci Abdou Diouf la tàmbalee Abdoulaye Wade ñëw gën a yokk mbir mi Macky Sall moom ñëw xëdd kaaba gi lii la yéenekaay bi bind cité Asegna ak cité Biagui daanaka pepp suuf desatu fa li des te ñu war ko lijjanti mooy mbirum contrat hydrocarbures yi ak renégociation gi ci autorité yi jógtee laas bind ne na ci gi def ndank ndax amna ay risque yu ci nek buñu ci docteur Mustafa Fall di enseignant chercheur ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru la digal autorité yi mu ngi ci page 3 bu kay bi kenen ku sekk waxtan ak yene kay di professeur Babacar Gueye ci bëss bi le jour ay kàddoom ci référendum gi ñuy ruumandaat nee d'accord na ci de bu dee danañu ca wañi pouvoir yi président de la république amé leneen nit la wax jëm ci loi d'amnistie bi nee na ndegam dañuy créer cour constitutionnelle loi bobu da fi joggé ñu joggé ci bi le jour tabbi ci direct news mom dafa jox kàddu Abdoulaye Ndiaye nekkoon na fi député kay bi laaj ko ci li fi docteur Abdourahmane Diouf ministre de l'enseignement supérieur wax barke dembe, ne ministre des sports ba woon dafa consommé ci ñetti wër dong ko par yi compétition internationale yi mu yok ci né lola tax ñom ñu am ay jafé jafé ngir topato athlètes yi Abdoulaye Ndiaye nak fatali Abdourahmane Diouf ne ko examen budget 2024 ci octobre 2023 la woon diggante février ak mars ñu positionné ko légui muy laaj budget boo xamante ni ñu ngi koy doog a positionné nan la nit mën a def rek ba ay manqué-manqué yu ñu toll di am honorable Ndiaye ne dafa yaakaar ne Abdourahmane Diouf xalaatul bu baax laata muy wax li mu wax ndaxte budget général dafa am ay règle yu ko lal ci ni ñu ko war a doxalee daw caw ba tey ci yéene kaay bi ne de toute façon yàgg na fi nguur gu ñëw bees tuumal ki fi jóge firnde gi ci mujj président Bassirou Diomaye Faye mi ne keesu état bi dërëm nekku ci am naam amul daw caw nee na mënu ko tontu waaye li ko leer daal moo di woy wu ne tàmm nañ koy dégg ci ñoom ak l'observateur mi xëy tey defab gëstu ci indiscipline ñàkk yar gi ci réew mi fi mu ñu jëmee du baax sama naataango gis ne faw ñu am ci solution bu radical waxtaan na ci ak ay sociologue ay psychologue ba ci sax ay psychosociologue ñu xàll yoon wi wax yéenekaay bi li ñu war a def ngir ñàkk yar gi ci réew mi mën a dakk lu ko mooy lambaay dana ñaw Sénégal yendoog jàmm sumari.com Touba Darou Salam Caro Prestige ak association bi lëkkale assureur du Sénégal ci projet bi jëm ci digitalisation attestation d'assurance automobile Nous leen doon may li ci yi. mbokk yi ñu yegg seeg yéen léegi ci gis seen nag la ñuy waxtaanee wàllum luyaas wi dëkkuwaay nag la ñuy fexe mu jàppandi ci askan wi ngir waxtaan li ñu mel nag daañu ci ànd ak Momar Ndao jiite Konarel di commission bi ñu dénk muy seytu wàllum luwaay yi ci réew mi du luyaas wi Momar ñu ngi lay nuyu. Euh, maa ngi leen di fay di nuyu ñiy déglu ci réew meeg bitim réew yëpp. jërëjëf ñu ngi lay fay daañu am tam ci waxtaan mi ak Massamba Ndiaye Massamba Ndiaye secrétaire général FACIS di fédération des agences et courtiers immobiliers du Sénégal Massamba ñu ngi lay nuyu. ma hmm, Massamba Ndiaye kon euh, dañuy ànd ak moom laata loolu dañuy tàmbaleeg Momar Momar Deng ba ci conseil des ministres président wax na lu bari ci wàllum dëkkuwaay euh, nee nag euh, si ak HLM nañ fexe ba mbir yi jàppandi ci loolu sax nee na nañ amal conseil interministériel ci wàllum logement su ko defee mbir yi jàppandi ci askan wi wàllum liaas bi yow naka nga gisee yoon yi nga xam te ne fa lañ mën a jaar ngir mbir yi nag nekk mu nekk loo xam te lu jàppandi liaas ngi diis lool ci nit ñi. waaw jërëjëf euh, gis ngeen ne luwaas dafa nekk jafe-jafe boo xam ne kenn mënu ko natt fu mu yem ak euh, jot ci kër maanaam accès au logement ba tax na gis nga ay téeméeri téeméeri nit xëy benn jour rek dem ca euh, ay kër yoo xam ne dañ koy defar pareegul ci biirum cent mille logements yi rek ñu dem occupé ko kon bu état jógee ne day lijjanti loolu ñun jàpp nañ ne lu am solo la euh, li ci nekk nag mooy mbirum sans mille logement boobu mbirum location moment mbirum logement waaw mbirum saa muy logement yow yaa ko tudd mirum saa mille logement boobu nga tudd euh, li ko taxoon jug euh, xam nañ ko mbir yi waaye dafa mel ni boobu ba léegi doxul daanaka 2019 ba léegi ban jàngat nga ko def est ce que liñ ci bëggoon am na maanaam yombal yombal mbir ci askan wi dafa mel ni ba léegi mbir dafa dafa xaw a taga tembe waaw ba léegi mbir yi dafa xaw a tembe ndax euh, logement yi nga xam ne moom lañ jot a tabax euh, dafa néew lool te tant que logement yi bariwul ba nga xam ne euh, bari na ba nit ñi di di di wër ku ku ñëw luyee seen i kër yi njëg yi day continuer toujours di xaw a seer mm-hmm. loolu moo tax jàpp nañ ne lu ñu baral la état dafa war baral gaaw liggéey bi nga xam ne moom moo jëm ci mbirum cent mille logements yi état nag dafa am ay société yoo xam ne moo ko moom comme ay yu mel ni ay SICAP ay HLM nga xam dañuy def promotion immobilière état dafa war a jóg ci société yooyu jubal leen ci uniquement ñi kër yoo xam ne pour ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw la mhm. parce que boo xoolee actuellement kër euh, euh, euh, kër yi liggéeyukaay yooyu noonu ñoom SICAP ak yooyu mhm. daanaka ay këru borom doole rek la ñuy tabax te loolu day tax euh, jot ci logement dafay xaw a jafe te logement nekk na loo xam ne lu centrale la ndax sénégalais bu nekk jàpp na ne war na balaa muy euh, sàngoo suuf euh, am am kër goo xam ne moo ko moomal boppam. Mhm. te jàpp jàpp nañ ne loolu nag ah il faut que état jëgal boppam. ci ñaar yëf beneen bi aussi mooy xam nga am na temps yoo xam ne état doon na def ay HLM mag yooyu nga xam ne doon nañ def ay kër yoo xam ne pour location kese la. Hmm. ndax nit day jógee Kaolack ñëw di liggéeyee Dakar. Euh, euh, war a am fu mu dëkk donc su amee fu mu ko luwee mooy gën que mu war a nekk ne maa ngi dem di lijjanti lu ma jëndee kër.

ngeen gisee mbébétu nguur gi jëm fexe ba dëkkuwaay yomb ci askan wi waaw baak tegi ni maa ngi maa ngi leen nuyu maa ngi nuyu président Momar Ndao ñu ma bokkal plateau bi waa di wax ne damay njëkkee si ni président mbébét waa ndax ñun liñ si waxoon rek boobu yàgg na ëpp na leen mu jege fukki at daanaka mooy faw ñu saytu ko suñu buggee wàllum location oyof si poche sénégalais yi maanaam ñett yi nga xam ne ñoom ñoo ko tënk muy wàllum foncier bi suuf si njëkk li wàllum financement bi ndax lëkkaloo bi nit ñi mën a am ak banque yi pour mun a am ay financement pour mun a financer seen projet immobilier ak wàllum fiscalité bi mi nga xam ne tamit mooy tegu si kaw njëkk yi wala si kaw promoteur yi suñu buggee investir ci secteur boobu mhm. waaw loolu bokk na lu ñu war a saytu wàllum cherté bi nag xam nañ ni àdduna ni mu tëddee la te fii ñu toll ci Sénégal euh, dem demande bi dafa sut loolu offre bi mhm. maanaam ñi bëgg fu ñu dëkk ñoo ëpp fuuf li marché bi mun a produir loolu nag foofu la état mën a taxaw mhm. mu xool lan moo siy pexe te pexe yaakaar naa ne experts yi liggéey nañ si liggéey bu sori président Momar ndaw moomu ak ñu mel ni waa FASIS ñu mel ni waa ANAIS ñu mel ni waa experts hmm. immobilier yi ñu mel ni notaires yi yàgg nañoo daje di waxtaan si ay pexe yoo xam ne dinañ ko mun a teg pour saafara mbir mi. Mhm. léegi léegi yéen waa FASIS yéen a ngi woon ci euh, projet cent mille logements yi boole woon nañ ci euh, projet bi daanaka liñ ci doon séntu amuñu ko cent mille logements euh, boobu ba léegi ñi ngi xaar liñ ci defal ñu naan ay deux cent ak trois cent fan la mbir yi ba projet boobu doxul comme il fallait. waa xam nga projet boobu moom ñun suñu wàllu tam mënuñu see sori torop parce que buñ ne FASIS boole nañ ñu mooy boole nañ leen si waxtaan njëlbeen bi. waaye si procédure bi sax kenn booleel ñu si ndax euh, munu amul benn fànn boo xam ne FASIS taxaw na si si waayu boo xam ne war na ko mun doxal baa mu joxe xalaatam si niñ ko mun a doxalee bien que amoon nañ suñu xalaat waxtaanoon si ak ministre bi fi nekkoon waaye recommandation yi ñu joxe woon tamit dañ ko doxewu woon moo tax projet boobu ñun jàppoon nañ ni amoon na yeneen anam yuñ ko mënoon taxawalee ba tey dina mun a saafara lu bari ndax dina dina dina am na pexe yoo xam ne ak étude yoo xam ne joxoon nañ ko état wax ko ni ko boo jaaree fii di doxal fexe faj aajo sénégalais yi état bi dina am emploi bi dina yokk ba pare PME yi nga xam ne ñëpp ñoom ñooy yëngu ci wàllum immobilier dinañ ci gis seen bopp waaw waaye loolu yëpp bu amul nag te eh, niñ ko doxalee ñun amuñu maîtrise bi duñ ci mën a sori vraiment mais liñ ci xam daal. mooy amoon na yeneen anam yu yuñ ko mënoon doxalee ba nga xam ne liggéey bi dina gaaw te dina yemb te dina yomb ci Sénégal yëpp ba ñëpp mun ci jot Mhm. Euh, euh, Massamba Ndiaye jërëjëf nañ ñëwaat ak yow wéyul waxtaan wi laataaloon dañuy àndaat ak Momar Ndao Momar ndaw euh, nguur gi président Macky Sall nguuram bi ñuy taxawal konarel li ko taxoon a jóg mooy fexe ba wàññi luyaas bi waaye tamit mu ngi jàppandi ci askan mais ba léegi nii dafa mbir yi teelawaaloo gën a ay nit ñaa ngi joytu ba léegi seeraayu luyaas bi lu ko waral est-ce que du ne commission boobu am na amul njëriñ lu tax ba askan wi santirun dëgg-dëgg liggéey bi ci terrain bi. waaw waaw liggéey bi mu ngi dox normal mais li nga xam ne mooy jafe-jafe yi ñaar la hmm. benn bi mooy néew doole ji nit ñi néew doole ndax da ngay gis koo xam ne yoon da koy wax ne ko may nañ la nangam mais doo ko nangoo jël parce que xam nga ne yow mi locataire bi lii sa àq ak sa yelleef ci li nga xam ne mooy lo loyer bi defoo ko boo xam ne doo fay normal xam nga doo demander ñu respecter li nga xam ne mooy say droit ndax da ngay bañ kële yi tamit bu waree laaj ay droit am laaj ay droit am loolu bokk na ci jafe yi hmm. beneen bi nga xam ne bokk na ci jafe-jafe yi mooy état toujours day day annoncé dara mais du dem jusqu'au bu mm-hmm. tey jii état taxawal na commission boo xam ne moo war a réguler loyer yi mm-hmm. mais ñun amuñ budget ba léegi mm-hmm. ay avance sur trésor la ñuy kii rek di débrouiller di di liggéey di eh, diggante ñi nga xamante ne bi ñooy locataires yi ak bailleurs yi mais yeneen partie liggéey yi nga xam ne ñu ko waroon a def yëpp yu jëm ci nan lañ mën a defee ay euh, régulation ñi nga xam ne ñooy courtier yi ak euh, ñi nga xamante ne bi ñoom ñooy bailleurs yi te loolu liggéey nañ ci defar nañ projet de texte yeeg yëpp mm-hmm. ak moom moom président mbay moom di wax sax bokk na ci ñi nga xam ne euh, ñun moom ñu doon nekk ñu doon def liggéey yu préparé texte yeeg yooyu yëpp donc impliqué yeneen euh, agence yeeg yëpp mu liggéey mm-hmm. donc mais yooyu yëpp après état dafay taxaw di seetaan maanaam bu bu waree continuer liggéey toujours dafay commencer dara rek après dafay bàyyi loolu. ñu tax muy seetaan ñu ngi ñaan état tey jii. impuissance wala lan la impuissance vraiment ñu dem jusqu'au bu mhm. parce que euh, mënoo ne damay taxawal benn kuréel ba pare joxoo ko jumtuwaay yu liggéeyee. Mhm. su boobaa aussi liggéey bi dafay sooxe. Mhm. donc loolu bokk na ci yi nga xam ne toujours état loolu moo koy tardeel ci. Eh, ay initiative yu rafet yoo xam ne mi ngi koy jël. mais duñu dem jusqu'au bout de la logique. état bi lan moo waral mu seetaan euh, pression la de de côté lan moo waral ba euh, ni ñu ko yaakaare woon amu nii mu toog di seetaan. waaw xam nga réew moo gis ña fa ëpp doole mooy ñi nga xam ne ñooy borom kër yi. ñu ëpp hmm. doole ci réew yi ñooy borom kër yi. donc xam nga tey boo xëyee nga ne ah yéen ñii nga xam ne yéenay borom kër yi kat hmm. dañ bëgg a wàññi li ngeen di gañe toujours des am résistance donc résistance non toujours des am mais li li li li li a comprendre mooy né état njaaxaanaay lay tëddee mhm. contrôle bailleur contrôle locataire su bailleur yi investissement pour li nga xamante bi mom moy seen om pour que ñu mëna à l'état de état da jël en compte motax da fay ayé jaay perte kon bailleur bi la perte mhm. mais aussi bailleur bi la ëppal parce que bu appelez lii xam mooy mooy doon jafe-jafe bi mooy day lor keneen ki nga xamante ne bi moom mooy locataire bi léegi nag jaaxaanaay googu nga xam ne moom la ñu war a tëddee mhm. ñun ñu ngi koy tëddee mais ah, daf ci bari ñoo xam ne dañuy yaakaar ne xaj na euh, dañuy wàññi seen li ñuy gañe mhm. su ko defee tamit day bari ay résistance mhm. loolu daal bokk na ci li nga xamante ne tamit mooy jafe-jafe yi. Mhm. Euh, Momar ngi jeexal rek nguur gu bees gi yéene mooy wàññi dund bi te bu ne wàññi dund bi lépp mi ngi ci. location mhm. sax mi ngi ci di loyer bi est-ce que mhm. yéen a ngi liggéey ci wàllu woowum jëm euh, ci geneen wàññi euh, jëm ci loyer bi gannaaw bi fi amoon daaw ci 2023. waaw pour l'instant li nga xamante ne bi moom mooy li état bi wàññeeku mooy ceeb yeeg diwlin yeeg yooyu mais am na ñaar fukki produits yoo xam ne ak benn yoo xam ne Euh, ñun proposé nañ état pour mu liggéey ci pour mu mun a wàññeeku hmm. euh, yoo xam ne romb na sax li nga xam ne moom la nit ñi di séentu euh, te bu fekk ne état ni mu waxee ne d'accord na seet loolu hmm. suñ ko defee incha allah dina tax ba population yi seen jafe-jafe yu bari wàññeeku. luyaas bi ci la bokk beneen wàññi luyaas dina mën naam am. waxaguñ nag beneen wàññi luyaas. Hmm. mais pour l'instant wàññi bi nga xamante ne bii moom lañ jël nañ ko appliquer. mais déggaguma état ne dafay wàññiwaat loyer Mhm. jërëjëf Momar Ndao ñu lay sant lay gërëm Momar Ndao di njiit CONAREL di commission nationale régulation du loyer ñu koy gërëm bu baax a baax jeexal ak Massamba Ndiaye Massamba euh, ñu ngi nga Momar li wax problème bi mooy surtout les bailleurs maanaam borom kër yi ñoom da d'habitude duñ nangoo wàññi ak tamit règle du jeu duñ ko respecté comme il faut euh, noonu lan li ciy pexe nan lañ mën def ba nga xam te li nguur gi ci ko ñëpp doxal ko waaw pexe bi moom mooy mooy doxal aw yoon rek xam nga mbir moom buñ ko bëggee sottal moom faw ñëpp tegu ci yoon buñ nee ñëpp nag mooy ñëpp ndax bailleurs yi fo comprendre aussi que ñoom tamit ñoom li ñuy gis mooy ñun bi ñuy tabax suñu kër wala bi ñuy nangam état fekkuñu ci kenn fekkuñu ci lu tax état di ñu wàññi loo mhm. waaye ñun yowoon nañu ay pexe mhm. yoo xam ne parce que marché dañ koy concurrencer mhm. tey bu fekkoon concurrencer nañ marché bi nga xam ne bailleurs yi moom la ñu am moom la ñu établir te état dugal si loxoom am lum si joué si concurrence boobu kon tey prix yi dina wàcc solution yi moom ñu ngi fi ndax xarañteef bi ak njàngat bi ak études yi nga xam ne moo ñu ko mën a permettre ak pexe yi ñu ko mën a permettre yooyu yëpp ñun saytu nañ ko ba teg ko si table bi jox ko état li des rek mooy appliquer ko. Mhm. te tamit kuréel yi nga xam ne état moo ko teg lu si mel ne ay konagal war a secteur boobu. ak ñun li nga xam ne demandé woon nañ ko ñun professionnel mooy agence de régulation bi yu mel noonu buñ ko tegee ñu fexe ba ba jàppale ko ba mu am si mu mun a sukkandiku pour mun a doxal li état bu bëgg ak li nga xam ne moom mooy soulager askan wi. Mm, yooyu yëpp dafa bokk si yoo xam ne mun na tax ñu indi pexe saafara boo xam ne day nekk saafara bu mucc ayib. si wàllum location bi. Hmm. justement saafara am na solo yaa ngi koy wax mais application bi mooy problème nguur gi mën nañoo euh, xalaat ak yëpp am yi pexe mais bu fekkee ne euh, acteurs yi euh, ku nekk deful la nga war a def day am problème léegi yan solution ngeen gis ne daal lii mooy yoon yi bu fa jaaree mbir yi dina wàññeeku mu jàppandi ci askan wi lu yaas bi. waa yoon bi moom li ñu wax rek comme li ko li si njëlbeen mooy si si si structuration bi mooy kuréel yooyu ñu fexe ba nga xam ne ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekk ci milieu bi ñu impliqué leen ci ñu représentatif ci parce que am na yenn yoo xam ne sax mënuñu ko wax fii waaye amoon na ci bi ñuy taxawal Sonatel bi te yooyu yëpp waroon nañ ko war nañ ko mën a saytuwaat ba doxal ko ndax ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk sur le terrain ñooñu ñoo mun a doxal yi nga xam ne moom yo nguur bëgg te comme li ñu wax nag bayeer nag ki nga xam ne moom Euh, promoteur privé la wala entrepreneur privé wala investisseur la ñëw investir am na loo xam ne état mënu ko teg ci kawam waaye état am na pexe yu mu mun a def boole ci askan bi pour mun a teg ko pour concurrencer marché ba bu ko defee marché moom euh, ni ñu koy waxee euh, règle la hmm. boo fi tegee fii luy jag fanweeri junni fii nga teg fi luy jag juróom benn fukki junni te ñoom ñaar ñi méngoo bi day xool li ko gën a arrangé mu def ko hmm. waaw. Mhm. jërëjëf Massamba ñu lay sant lay gërëm mu nekkoon Massamba Ndiaye di secretaire général FACIS fédération des agences et courtiers immobiliers di Sénégal ñu ngi lay gërëm bu baax Massamba del tam di gërëmat gërëmaat euh, Madin euh, Momar Ndaw di njiitu CONAREL commission nationale de régulation di loyer mbokk yi mu nekkoon xibaar yi newoon tam euh, gis-gis El Hadj Ndiogou Diène moo nekkoon ci micro bi Maysa mbay ci machine bi ñuy gërëm bu baax di Ndiaye nekkoon production ñu koy gërëm naka noonu tam chef d'édition soxna Awa mbay ci kanam tuuti yëgle ak tàggee ak soxna Aminata Ndaw jaajëf ñëf ci ànd beeg RFM ñu yenn ak jàmm. association des assureurs du Sénégal maanaam kuréel gi ëmb kulli assureur nekk fii ci Sénégal tàmbali na liggéey bu am am solo jëm ci